fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di delsi di àndaat ak yéen ci jataay bi ñu bokk muy jataayu fatawa di jataayu ubbee di xam-xam tey ñu ànd ak yéen ci jataayu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent muy deux cent quarante-neuvième émission di sant suñ borom bu baax a baax baax te di ko ñaan mu dolli ñu di sant mbokk yi nga xam ne ñi ngi fi tàbbal seeni ñaan ak seen rafetlu gi ñu rafetlu liggéey bi yal na yàlla nangu ñaan yépp te boole ñu ko kon Cheikh naa dañ lay jox kàddu gi rek niñ ko baaxee baaxoo defee ba tijji ñu jotaay bi suñ noppee ñu jublu ci liggéey bi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ak ndimbal ak yërmande Cheikh Abdallah buñ la nuyoo nuyu suñ faako ak mboolem ñu jàpp ci liggéey bi bismillah alhamdulilah mbokk mi Mouhamed Ndiaye lañ koy wax di wootee Kaolack fii ci coofak nee kii day laaj nee moom day def daan jëfandikoo kurus di ca def ay tudd yàlla yoo xam ne saxul ci sunna waaye muy dox ba dajeeg sa fatawa boo xam ne yaa nga cey leeral atti kurus ak yéen cay def ba tax na daal fi ne jëfandikoo tu ko nam ko daan jëfandikoowe waaye nag téye gim koy téye da koy fàttali tudd yàlla su ko téye daal da koy fàttali bu baax tudd yàlla donte du ko jëfandikoo ci di konte la muy wax mbaa mu am ca lum ca fas lu bokkul ak luñ war a fas waaye nag da koy fàttali daal tudd yàlla muy laajte nag ndax téye googu mu koy téye ngir mu di ko fàttali tudd yàlla eh, daraañ ci ndax dafa seetlu ne su ko téyewut léeg-léeg mën naa toog ab diir te tudd yàlla dem ci xelam waaye téye gi mu koy téye nag moom da ci yëg ne daal da koy dimbale ci tudd yàlla saa su nekk muy laajte ndax loola dara newu ci wala déet alhamdulillah sant yàlla moo ci war ginnaaw borom bi tabaraka wa taala génne na ko ci jëfandikoo ay biddaa ci lu jëm ci xeetu jaamu yàlla wu màgg woowu yi nga xam ne mooy tudd yàlla mu des jumtuwaay bi nga xam ne moom la doon jëfandikoo bu masaa nekk ci biddaa yooyu mu daan def jàpp naa ne eh, tudd yàlla ci saw làmmiñ ak fàttaliku ko ci sab xol war naa doon loo xam ne nit ki dana ci yar boppam ci anam koo xam ne du aajowoo benn jumtuwaayu matière boo xam ne su yorul matière boobu du fàttaliku yàlla loolu xeetu faiblesse la wu doyo doyo ci xeetu diggante jaam bi ak boroomam bi ko bind sa boroom tabaraka wa taala lépp looy def lu nekk samtel war naa dem ci moom tudd ko war naa am bul fàtte ne sharia ci boppam daf laa tegal programme bu mat sëkk boo xam ne looy yëngu lu nekk daanaka rek sooy bone tudd yàlla nga ci <coughs> booy lekk yaa ngi tudd yàlla boo ko fàttee sax boo demee ba ci digg bi am na tudd yàlla guñ la jàngal boo lekkee ba noppi am na tudd yàlla guñ la jàngal booy dugg sa kër ak booy génn booy dugg ci jàkk ja ak booy génn boo dajeeg sa mbokkum jullit la ngay wax ak moom nuyoo ci jiitu tudd yàlla la booy tàggook moom nuyoo ca mujj tudd yàlla la ba ca wana wa sax boo cay dugg yaa ngay tudd yàlla boo génne yaa ngay tudd yàlla kon nag jaam bi programme bi nga xam ne moom la ko ak tegal diggante bi fu fi ab xolam di fàtte yàlla ba mu naan kurus moo koy fàttali yàlla loolu moom nit ki daa war a tàggat boppam ci jëmmam ci boppam akub xolam akub xelam fu mu toll fu nekk su ne yar ci leneen it war naa del su ne yar ci boroomam ndax la ngay bëgg a def lu nekk boo xalaatee bu dee lu ñuy xéewaloon nga xam ne li xéewalu yàlla la bu dee lu ñuy nattoo nit la nga ne lii de yàlla yàllaa ko ko nattoo bu dee xéewal kuñ defal nit muy yow wala keneen nga ne lii de xéewalug suñu borom tabaraka wa taala la gum defal jaam bi boo rombee sax lu ñuy war a ñeen it nga ne lii de xéewalug yàlla la gum ko defal kon jaam bi diggante benn boo xam ne day fàtte boromam ba naan kurus moo ko koy fàttali loolu moom ku toll foofu war ngaa góorgóorlu bu baax a baax nag yaraat sa bopp yaraat sa xel delloo si waat sa concentration ba xam ne yi ñu lay wax waxloo nga di ko wax nga xam ne tesooli sax boo ko defee ne alhamdulilah bu nit tesooli ko sax nga ne ko yarhamukallah bu ne alhamdulilah yooyu yëpp ay jokk jolante la yoo xam ne ci biir tudd yàlla ci la bokk ju boo dee julli yaa ngay tudd yàlla boo sëlmalee say askar yi ngay def sa askar yi subaak ngoon jaam bi daal ci gàttal làmmiñam la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon saxaabi yi bi ne ko laa yasa laa yazaalu lisaanuka làmmiñ bu mu dañ mukk di tooy ci tudd yàlla daanaka programme bi tegal jullit bi mooy jëfandikoo liñ la liñ la jàngal rek liñ la jàngal daal boo ko jëfandikoo koo toll fu ne yaa ngi tudd yàlla naam. jazakumullahu xayran cheikhana tontu tontu li leer na am na solo. mbokk mi day laaj nee ki nga xam ne dafa amee janaaba ci guddi gi te mënta sangu amaana am na gàllankoor daal bëgg na daal nelaw ba yeewu soog a sangu. ne ndax kooku leneen lu ko war lu dul sangu nañ ki nga xam ne dafa jot janaaba wala janaaba jot ko ci guddi gi te sangu wut mu bëgg a tëdd nelaw sunnaal nañ ci moom mu jàpp uh, Omar ibn alxataab radiallahu taala anhu laaj na yonente bi sallallahu la waalihi wa sallam ne ko wa huwa junub kenn ci mën naa tëdd nelaw te fekk mi ngi yore janaaba mu ne ko naam ida tawaddaa ahadukum falyarqud mu ne ko waaw waaw su fekkee ne jàpp na sooy boo mu tëdd nelaw kon jàpp moom yi sunnaal nañ ko ci ki nga xam ne dafa yore janaaba te sanguwul door a tëdd kon na jàpp tëdd wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana al abdallah ka di wootee njaafat mu ngi leeral ni jamono ji daal li nga xam ne mooy fecc kóllëre ak euh, dige ba noppi wor mbaa ñu wóolu la nga wor kala wóolu rawatina lu jëm ci bor nee na yooyu yëpp daal gis na ni lu tasaaroo la ci jamono ba ci ñi nga xam ne sax dañuy góorgóorlu ci seen diine di góorgóorlu ci sunna eh, nee na lu mel noonu dafa tàmbale tasaaroo ci seen biir muy sàkku ci cheikh bi ay laaye biir yoo xam ne daal dina ko ci jëmale alhamdulilah wattu kullore ak sàmm ko day ak yépp digee goo xam ne dox sa dox na sa diggante sa mbokk nga fonk ko ba na nga ko digee nga def ko moo xam ay wax la moo xam ay jëf loolu ci biir diine ji la bokk ci imaan la bokk borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayuha alladina amanu awfu bil uqud yéen yi nga xam ne da ngeen a yàlla na ngeen matal seeni kollëre ak seeni contrat yi nga xam ne da ngeen koo lépp loo dig sa mbokkum jullit góorgóorlul ba defe ko ñu ko ko diggee <laughs> bu ab jullit sax da war a góorgóorlu ba defee ko ni nga ko diggee ndax mu xam ne lii melokaanu lislaam la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi tudd mandarga yi naafiq ba wax na ñett la daf ne ida xaddasa kadab su fekkee ne dafa waxtaan day fen wa ida waxada axlaf su diggee dara da koy wor su joxe rendez-vous du ko defee nam ko waxee day fausse rendez-vous wa ida tumina xaana su fekkee ne dañ ko wóolu ci dara mu war ka ko wóolu yooyu melokaan yu bon a la yoo xam ne ci melokaan yi naafeq ci la bokk kon jullit bi ci boppam daf koy wattu loolu yi mu wax dëgg la nag mooy néew na ci jamono ñoo xam ne dañuy sàmm kóllëre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko nee na jamono yi ñëw joo xam ne danañ dem ba mu yàgg nga dégg ñu ne famille sàngam day am na nit ku fa nekk koo xam ne ku wóor la am na ku fa nekk koo xam ne ku wóor la nga xam ne loolu day jaaxal nit ñi lool suñ ko déggee lu nit ñi bari bari bari da ngay dégg ay benn benn lay doon yoo xam ne dañuy xam ne ñooñu ñu wóor lañ buñ la lebee fay la buñ waxee lañ wax danañ ko def buñ ne du ma def nangam duñ ko def buñ ko narut it duñ ko wax ne dañ koo nar seeni wax daal day dëppoo ak seeni jëf loolu nag melokaanu jullit la ndax jullit bi la tàmbalee ca laa ilaha illallah ja muy wax làmmiñ wa di ko wax dëppoo ca ak xol ba jëfam yi ci des yépp loola da ca war a rogalaat ba nga xam ne lépp lu muy wax day dëppoo ak lam nar nga xam ne su waxee te jëful daal kum ko leeralal ku nekk da nga xam ne lii moom keneen kum doonoon doo ko jëf ndax am na ngànt loo xam ne doy na sëkk ngànt naam ahsanallahu ilaykum cheikhana abdallahi jàllo di wootee kër jarapël nee na baatub naafiq ndax dagan na nit ki di ko jëfandikoo te fekk jubluwu ca la ca sharia jublu te mooy kuy nëbb kéefër di feeñal ngëm mu ne lu mel ni koo xam ne dafay askanoo ci benn parti parti politique ne moom foofu lay askanoo waaye dëgg dëgg dëgg dëgg loola amut maanaam da koy mbubboo rek waaye loola amut ndax ku mel noonu mën nga mën nga ko wala nit ñi mën nañ koo wax ne naafeq la ngir jëf jooja alhamdulilah ndax kuy askano parti politique di wane ne te bokk ca ndax dañ koy tudde ab naafeq ala kulli xaal ma ne ko tudde naafeq naafeq ci sharia moom dafa am luñ ci jublu mooy ki feeñal ngëm mooy ki feeñal ngëm te dafa nëbbu safaan ba xëy na ak nirale la ndax kii dafa am lum feeñal am leneen lum nëbb waaye nag loolu àggut ci kéefër bañ koy tudde ab naafiq borom bi nee na inna al munafiqina fi darki l asfali min an naar naafiq ya ëllëg ca ndettul la ñu nekk fa ca gën a xóot gën caa tàng foofa lañ leen di yóbbu kon bala nga àtte nit kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah naan ab naafiq la war naa doon lu ko jar kii di askano ab parti te fekk bokku ca dañuy xool lum ci jublu su fekkee ne lor waa parti ba la ci jublu wala ndax aw nit ngir lekk seen alal wala yu nuroog yooyu yooyu yëpp day daal di doon lu xaraam ci moom su fekkee nag dafa am lum ca laxas loo xam ne ngir bëgg a mucc la ndax léeg-léeg mën nañoo askane nit ki ay xeeti askan yoo xam ne la ko ca mën a génne mooy wane ne fi béréb sàngam laa bokk te fekk béréb booba la nga nëbb mooy bokkoo ca su boobaa ma ne su ko tudde na naafiq waaye kuy làqu la mooy koo xam ne yaktumu imaanahu dafa am loo xam ne moo nekk ci moom mu di ko nëbb ngir bu ko feeñale mën na caa looru lor jum attanut su boobaa kooku duñ ko tuddee naafeq duñ ko tuddee fenkat waaye su fekkee nag intérêt dong moo tax mu di ko def intérêt kese pour moom lu mu ca am ci intérêt du lu la bu ko lekkee te it ngi def loo xam ne ay fen la te fen ci boppam dafa xaraam waaye nag bu tax ñu tudd ko naafeq ndax naafeq moom ku génn diine lislaam la wallahu taala alam asaabakum allahu cheikhana maxtaar si la kawlax day laaj nee ndax sax na ci sunna e, nit ki jël jaaroom e, bind ab kayit mbaa lu muy tuddee ñaan mbaa muslaay ma xaatim tudd na ko sax tudd na xaatim daat koy eh, def ca kaw jaaro ba tëj ko léeg-léeg nee mu gis ci ay jaaro yu rëy rëy yoo xam ne dañ koy jaay waaye yu mel noonu lañ cay def ca biir muy laajte ndax loolu nag lu sax la ci lislaam wala déet alhamdulilah déedéet ab jaaro de kenn du ci bind ay xaatim di ko takk xaatim ci boppam sax kenn du ko takk lu dagan jëfandikoo ko itam daganut kon di ko def ci jaaro wala nga koy def ci leneen ñoo yem képp dara daganu ci xeeti xaatim yi am moom benn jagu ci jaaro nag lañ ca xam mooy ab jaaro rek bi bu ñuy takk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ab xaatam waaye nag loolu tuddut woon ab jaaro daana def léeg-léeg mu ŋàbb ko rek roof ko ci baaraam mu mel jaaro waaye fekk na ab tampon la woon maanaam ab cachet la boo xam ne da ci doon cachet ay leetaram Eh, dañ caa bindoon muhammadu rasulullah maanaam benn baat bu ci nekk nekk ci aw bind ñu tegaloo maanaam bind bu jëkkoo muhammad moo ci nekk bind ñaareel ba rasulu moo allah noonu la bindoo woon mu di ci caché ay leetaram ba suñ jonni tey am na ay leetaram yu jëmoon ci buur yi yoo xam ne boo xoolee da ngay gis cachem ba sallallahu alayhi wa sallam nañ ko ca tege waaye nag jaaro moom xamee sut ti ca def noonu moo tax xaatam bokkul ak euh, bi ñuy tàmp ne dafa bokkul ak euh, xaatam bi nga xam ne ab jaaro la hmm, jaaroom ba sallallahu alayhi wa sallam ba mu daan takk ab jaaro la moon rek noonu waaye xaatamam ba mu daan tamponné nag ca la tur yi mel noonu nekk li tax ñu bari jaawale ko ba tudde ko ab jaaro mooy tur yi dañoo bokk xaatam lañ koy wax jaaro di ko wax ab tampon ba pare liggéey woon na ko noo xam ne léeg-léeg mënees na jaaroof baaraam ngir yor ko noonu moo tax ñu bari tudde ko ab jaar ala kulli xaal eh, yooyu muy wax moom yooyu foo ko seen dawal ay xaatim ci biir yi jaaroog ay mbindi xarka buubaak yu noroog yooyu moom moo takk ko mu nekk ab boggal de nga takk ko ñooyam képp muy li ñuy tudde tamima naam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi day laaj nee na su fekkee ne dañoo taxawal julli fekk booba yaa ngi ci naafila ndax danga koy dagg dem ànd ak mbooloo mi ci julli gi wala boog dañ koy dañ koy yeggali mu ne rawatina nag su fekkee ne xam nga ni mën nga yeggali sa naafila gi te imaam du rukkoo su boobaa nooy def bu fekkee ne nit ki dugg na ci jàkka di nuy jàkka ko ñaari rakka wala mu muy naafila faf ñi taxawal julli le wér mooy daa war a dagg julli gi ñëw ci julli farata gi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ida salaatu fala salaata illa al maktuba suñ xasee taxawal julli gi geneenu julli amatul gudul julli farata gi amatul mooy geneen koo defit du ndax nag jamono yi ñuy taxawal ndax ida uqimat la wax suñ taxawalee julli yi ndax jamono yi ñuy taxawal naan allahu akbar allahu akbar booba rek nga war a daal dagg sa julli wala da ngay xaar ba imam kabbar ne allahu akbar takbiratul ihram ñaar yooyu li ci nekk ay na ko ala bu imam xasee ne allahu akbar moom amatoo sañ-sañu continuer dinaa fi la soo ko defee it sag naa ko la amul solo te it bul fàtte ne ki def kii yéene jàpp am jàppam ñëw yéene julli ñaari rakka am ngànt loo xam ne moo tax mu dagg ñaari rakkaam yooyu bu mu réere mbir ci ne sunu borom tabaraka wa taala mën na koo fay tuyaaba jëm ci doon wuti ndax yéene képp yu àndut ak jëf sunu borom tabaraka wa taala dana ko fay su fekkee daa am gàllankoor rawatina yéene joo xam ne ànd na dara ci jëf wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi nee na kii dafay liggéey ci vente en ligne muy day tasaare ay photo yoo xam ne ay fournisseur am ñoo koy jox mu di ko tasaare ci internet bi di wër client mu ne nga gis ku commandé fay xaalisam ngir ñu livrer ko ko mu ne su boobaa it ni muy def mooy day jënd marchandise ba fële ca Chine euh, su ko defee ñu livrer ko ko mu soog ko livrer borom mu mel ni foofa kon ki nga xam moo joxe xaalisam bi muy joxe xaalisam booba bagage bi yembagut ki nga xam ne it mooy jaay di ko publicité ci internet bi moom it bi mu koy publicité booba moom amul bagage bi kon foofa lay laaj daal ndax jëflante googu sharia nangu na ko wala déet alhamdulilah kooki di def vente en ligne njaayin woo muy jaay moom lañuy ñuy tuddee assalam ci fiq mooy nit ki soxla marchandise ñëw ci yow jaaykat bi fekk yoroogu nga ne ko mën naa la ko andil loolu aw njaayeen wu dagan la waaye nag dafa am ay charte charte ba ci jëkk mooy fay gi da la koy jox léegi comme noonu mu ko waxee rek da koy fay moom ñaareel bi mooy da ngeen di dëppoo ci melokaan wa muy qualité ba ak quantité ba la ngeen di jënd na muy toll ak na muy mel bu fekkee ne ay téléphone yu bari la nga wax ko qualité téléphone bi ban la ban mark la marque bi bu fekkee ay numéro yu bari la ban numéro la ca ba ci couleur sax bu ko neexee mu ne la couleur sàngam laa soxla su ngeen dëppoo ci loolu quantité ba ak qualité ba ba noppi dëppoo it nag ci date bi koy teg ci loxoom moom wax na ne ñaari fan rek dana ko ko mën a indil loola lu baax la waaye su ko ëppoo it te fekk dañ cee da ngeen waxtaan ba d'accord ca ba tey du wàññi dara loolu mooy asalaam noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee bi nga xamee ne ñëw na Madina te fekk ñuy jëfandikoo njaayeen bi ñuy wax salaf te mooy assalam dana leen képp koo ca xam ne yaa ngi koy def day bu dee lu ñuy natt na ngeen dëppoo ca natt ba bu dee lu ñuy peese na ngeen dëppoo ca peese ba te wutal ko nag ab dat boo xam ne buñ xam la boo xam ne ca ngay joxe marchandise ba ak njëg goo xam ne nag njëg bu teew la naam ahsanallahu ilaykum cheikhana mbokk mi nee na téere boobu ñuy wax al ashmawi ci al fiqhul maliki nee na soo fa demee dinga fa fekk muy wax ne euh, ki nga xam ne xelam dafa dem su demee ba xel ma ñëwaat nee na donte ay at la dafay fay koor yi nga xam ne moo ko faat jamono ji nga xam ne ci la xel ma demee mu ne loolu nag nuñ koy déggeeg li Isa salaam wax ne xalima teggil nañ ko ki nga xam ne mooy kii xelam dem ba keroog muy delsi alhamdulilah al ashmawi yadi ab téere la boo xam ne cheikh abdul bari al ashmawi al rifaayi al misri moo ko bind wax ca ba ne da ko bindal gone yi day ab téere boo xam ne buñ gàttal la waaye nag ci fiqu al imam malik ci la ko andi kii laaj wax ne dëgg laaj boobu masala moom noonu la ko waxee mooy ki nga xam ne dafa dof ba munta woor bari kooram lam yàgg-yàgg bis bu wéree da koy fay loolu nag wax la joo xam ne nii ma ko waxee day fiiroo ak li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne rafi al qalam an ñett ngi ñoo xam ne xalima gi santaani bàyyi na leen fa muy ki nekk gone te gut ak ki nga xam ne dafa dof te wéragut ak ki nelaw te yewoogut kon dof boobu yi moom kenn bindalu ko lenn maanaam dara waru ko ginnaaw xel ma newu kon nag bu wéree it du ko fay loolu mooy li xadis bi tegtale te mooy li wér ci mboolem ngër yi waaye Cheikh Abdul Bari al Ashmawi loolu mu wax da ko teg rek ci benn aslu boo xam ne daa nekk ci ngirum al imam Malik mooy li ñu tuddee al ixtiyaat muy li ñuy wax naan bu de xeetu jaamu yàlla ndax dees na ko defam deesu ko def maanaam ndax am nga ca ruxsa wala amoo ko ca dañuy jàpp ne rek bañ ko ca am moo gën a wóor moo tax ku juubu ñoom dañuy wax ne daa war a fay ànd ak ne xadis ba dana fang ne ku juubu du fay waaye teewul ñu na fay rek moo gën a wóor loolu la ñu tuddee ixtiyaat mooy léemtu mooy léemtu loolu day aslu ci ngirum al imam malik rahimahullah waaye nag aslu bu nekk ci am ngir bu fekkee daa féeroo ak beneen aslu boo xam ne moom ci usulu sharia ci boppam la bokk su boobaa aslu ngir ma moom day day day fàq daanu te aslu bii nga xam ne dafa teengal ba agg ci dof bi nga xam ne dara waru ko ñu ne ko da ngay fay sa koor gi doonte fanweeri at la ci gannaaw loolu day féeroo beneen aslu boo xam ne moom ci shariatul islam la nekk muy aslu taysir mu yombal ci nit yombalal nit ñi diine ji ak bañ leen a teg loo xam ne luñ àttanut la ñaari aslu yooyu nag suñ féeroo rek aslu sharia bi day daal di ëpp doole kon rahimahullah góor gi loolu wax foofu rek la ko teg waaye nag nekkut li gën a dëgër ci masala bi wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana abdourahman ndiaye di wootee Podor nee ndax dagan na nit ki sangu-sangu janaaba ci dex xam ne day yéene rek daal di nuuru ci dex bi euh, daal di bombo yaramam rek ba yaramam tooy mu génn mu ne ndax loolu dagan na mu teg ca ne ndiki noonu it su fekkoon ne ab siwo nga yor mbaa ab satala ndax dagan na it nga def ko noonu mooy yéene rek daal sotti ndox mi noonu ba yaram wi tooy nga boole ko bomb ndax loole it dana doy ci ki nga xam ne mooy sangu farata alhamdulilah ah, kii sangu janaaba jékki-jékki rek du yéene sangu daal di dugg ci biir dex gi ala kulli xaal na na bomb aw yaramam su fekkee nam koy bombe it mën naa dëpp koo ni nga xam ne loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale loolu mooy jaaru moy tàmbale ca weti ndeyjoor ya doora teg weti càmmooñ ya naam athaabakumullahu cheikhana mbokk mi nee na moom day ab murabbi la ci benn daara mooy saytu xale yi mu ne léeg-léeg nga gis ci xale boo xam ne day bari jafe-jafe day làq caay-caay tuuti ba léeg-léeg day laaj sax nga bàcc-bàccal ko li muy laaj nag mooy bàcc-bàccal yooyu ci wàllu yar ndax lu dagana jëfandikoo la ak su nekkee dagan naa jëfandikoo nu ko sharia tënke ba nit ke du ca xaabaabal alhamdulillah dóor gone guy toll ci jàng de moom dañuy wax ne mooy axiru dawa mooy alkay koo xam ne seet na saafara yëpp yëpp yëpp yëpp bamu nga door dóor ndax dóor gone li muy jëriñ li muy lor da ko ëpp waxuma lori yaram ji mën a jur ci yaramu gone gi waaye day dem ba jur ak yabeel ca biir goo xam ne gone gi da ko yëg ci sa diggante ak moom ndax jàpp na ne yow say pexe jeex na mënatoo ko convaincre ci dara doole rek nga mën a jëfandikoo léegi pour not ko gone nag soo xasee àgg foofu ci wàllu tarbiya daanaka duutu jëriñu ci yow ay jikko duutu jëriñu ci yow leen am na xeebeel gum lay xeet ca biir bu ko waxut itam moo tax dóor moom gënut ku ñàkk pexe ba di ko defit nag na nekk dóor yoo xam ne du ànd ak gaañ ndax léeg-léeg dóor yi ngay gis ci ay daara gone ñu dóor ko waaw yaramam xolli ko boppam di nàcc wala yu mel moom juyoo na lool ak lislaam li nga xam ne loolu la santaale ci gone gone nag des na ko dóor waaye deesu ko lor nag deesu ko lor naam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi nee na moom day mënta jàng suratul kahf waaye dinay def nag àjjuma ju nekk mu diglu ko bam jeex muy laajte nag ndax diglu googi mu di ko diglu ndax mën na ko may wala mu yëggale ko ci yoolu ki ko jàng lañ ca wax ne moom la cay am ci diggante ñaari àjjuma yi muy leer boo xam ne suñ boroom dana ko ko defal ndax ki nga xam ne mënu koo jàng waaye nag dina ko déglu dana am yool bu tol noonu alhamdulillah ki mënta jàng dara ci alquran moo xam saaru sóob su kaf la wala weneen waaye nangu na koo toog di déglu na ko sellal rek ne yàlla tax mu di ko def te boole ko nag ak rafetal déglu ga li borom bi tabaraka wa taala waxoo ida quri alquran fastamiu lahu wa ansitu na ngeen boole déglu ak noppi kon déglu alxuraan yu jàng ngay wax munta ànd kon faaw da ngay déglu concentré wu ne déglu ko ba mu la lam teg mooy la turhamuun su ko defee di ngeen mën a am yërmande seen borom tabaraka wa taala yërmande seen borom tabaraka wa taala doy na sëkk déglu alxuraan da koy indi kon déglu saar woowu la chàkk ne lu mat a def le ci ku ko mënta jàng waaye na nga jéem a góorgóorlu itam a jàng nag jéem a jàng ndax man ko boole di jàng ak di déglu léeg-léeg nga jàng léeg-léeg nga déglu naam asalaamu aleykum cheikhana soxna si nee na moom day day liggéeyee ci bërëb boo xam ne bu sori la bërëb la boo xam ne ko daanaka xawuta mën a nekk ndax daa sori te amul moyen de transport bu ko mën a yóbbu foofa lu dul Jakarta li muy laaj nag mooy ndax dagan na mu di ko jël eh, tey góorgóorlu ba eh, moytu daal yi nga xam ne sharia da ko da ko ko tere ci jonjoo goo xam ne jigéen dana ko jonjo góoru bu fexe ba di ko moytu kem kàttanam te di tey tey war moto ngir mu mën ko yóbbu foofa loolu yi lay laaj. alhamdulilah soxna soos yi nga xam ne daa waral a liggéey yi te amul moyen de transport su fekkee ne jakarta bi ci boppam moo ko moom di ko dawal loolaa fa sës mën naa bañ a wàññi dara waaye su fekkee ne góor a koy porté mu war ci gannaaw góor gi war ci kanam yooyu muy wax ne dana ko moytu moom loolu mënu ko moytu bu boobaa moo tax loolu moom duñ ubbee kenn jenn jigéen di ko wax tu ko góorub jàmbur mën naa war ci ab moto nga war ci gannaaw euh, muy dawal ngeen ànd di dem loolo moom mënuñu ko ubbee kenn jàpp ñu ne itam lu dagan la wallahu taala alam jazakum allahu xeyran cheikhana mbokk mi nee na dafa topp euh, li nga xam mooy émission wu fatawa yi déggoon ci ngay laaye biir mbokk yi ci xale boo xam ne daal euh, ba léegi mën a guta saytu li nga xam ne mooy euh, tuur ndoxam ba day tuur ndox te du ko yëg jamono jimi nelaw muy mu ne yaa ngi ci doon joxe euh, ay garab yoo xam ne daal baax na ci waaye nag da ko fàtte mu doon laaj su fekkee ne cheikh bi mën na cee dikkaat. alhamdulilah euh, cheikh Abdallah boo gisee masala yi génn fiq yu ci bari ñu di ko faral di génne bañ ko boole ci fatawa lu mel noonu moo tax ndax buntu bi su ubbiku mën naa dem ba euh, fatawa bu genn wàll gi jëmee ci fiq genn wàll gi dana jëm ci yeneen yi jëm ci médecine yi jëm ci leneen ak leneen euh, li ñu tuddee bawlul firaash muy tuur ndox ci ab lal bu xam ne day dal gone yi yooyu am na ay saafara yu ñu koy saafara waaye ñi ko gën a jagoo dëgg-dëgg mooy ñi yëngu ci fànn googu am na ci yoo xam ne tibb nabawi la ñuy jëfandikoo ku mel ne docteur ba ñuy wax Abu Anas du ma leen publicité waaye eh, laa biire ay mbokk ni ñu mel noonu ak ku ñuy wax Ibrahima Khalil ñaan ca parcelle ñooñu buñ leen laajee danañ leen mën a jox ay tegtal yu baax a baax yoo xam ne dana mën a saafara loola wallahu taala alam alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi kon mel na ni yegsi nañu fi ñu baaxoo yëkkatee suñu jotaay ñuy jotaayu fatawa fii ci rajo Kefar FM 99 point 7 ngeen koy ànd ak ñun àjjuma ju nekk ci waxtu wi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ci jiital cheikhana docteur yal na ko yàlla dolli tawfiq yàlla sàmm ko yàlla aar yëngatoom di sant eh, kilifa rajo bi rawatina technicien yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xarala gi Cheikh Fafa ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax waaye duñ fàtte mukk ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di sant di leen ci seen taxawaay ak ànd gi nga xam ne yéen a koy ànd ak émission bi ak farlu gi nga xam ne yéen a ngi ko ci wane waaye ñi nga xam ne ñooy laaj yi tamit duñ leen fàtte di ñaanal ñëpp yal na yàlla defal leen jàmm defal leen tawfiq defal leen sutura. Eh, yàlla nu yàlla xiir ci boppam def ñu dëgg-dëgg ay julit saxal ñu ci dëgg ba keroog ñu koy wuy ji kon Cheikhana ñu ngi lay jox kàddu gu mujj gi niñ ko baaxoo defee rek nga tëjal ñu jotaay bi allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulilah rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa amin amin Cheikh Abdallah yàlla na borom bi tabaraka wa taala nangu ñaan yëpp kon ñu ko mbokk yi ba ca rendez-vous di ñëw di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu yóbbu nu ci ak fekke akuk tal di ñaan suñ mbokk jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci biirum ndox ndox mi baawaan rek di yàq seeni kër ak seeni mbay borom bi tabaraka wa taala fegal leen mépp musiba ak bépp balaa te defal leen jàmm sàmm seeni alal ak seeni bakkan ak seeni jur wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu